yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abone te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di cinq Coran. ñoo ngi nuyu ñëpp seen tur seen sant di rafetlu bu baax kaddu yi nga xam ne moo fi moom lañu fi yëkkati ci suba ba léegi. maa ngi tudd moom Diadio Diop maa ngi nekk euh, Koweït université mooy université bi nga xam ne moom moo nekk Koweït maa ngi doon euh, suivre li nga xam ne moom la ñuy wax chimie appliquée. chimie appliquée moom mooy lépp lu jëm ci chimie ak euh, chimie appliquée ak différence chimie appliquée ak chimie moom mooy euh, chimie appliquée moom mooy ëpp ay application nga xam ne nazariya et yi nga xam ne moom la ñuy faral faral di jàng ci euh, chimie moom la ñuy appliqué fi nii application bi mooy ëpp daal mooy ëpp théorie bi samay kàddu dama koy gën a jëmale rek ci suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy waaj a taxaru ñoom ñooy waaj a génn si daaj ak ñi nga xam ne ñoom ñooy préparé seen bac pour dem jàng ci université yi vu xam nañ ne euh, ko it actuellement ni bëriwul ay sénégalais ñu bëgg leen a xamal rek foofu am na ay opportunités yu bëri yu bëree bëree bëree bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy jàng ci euh, arabe bi euh, ci ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy jàng affaire science bi yépp ubbeeku na fa ubbeeku na fa bu baax bu njëkk xawoon na jafe ndax li taxul mu xaw a jafe mooy ne mbir mi benn yoon dong la amoon mooy da jël sa ay sa ay sa ay papier nga déposé ko hmm, fene nga déposé ko ambassade léegi ambassade ñoom ñooy jël papier yi ñu trier ko am ñoo xam ne ñoom la ñoom la ñuy jël yóbbu ko si jaamia bi ñooñu bu ñu demee jaamia bi la ñuy jël après ñu ñu ñu ñu jël leen mais léegi am na benn euh, opportunité bu bees parce que léegi gars yi am nañ euh, en ligne boo xam ne am nañ benn site website boo xam ne des fois ñu ubbi ko ñi nga xam ne ñoo bëgg taqdim ñu mën a taqdim foofu directement nga xam ne sans seen ay document di jaar ambassade ndax bu jaaree ambassade il faut mu jaar si ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey ci ambassade Sénégal bi nekk Koweït après ñoom ñooy trier dossiers yi ñoom ñooy jël dossiers yi nga xam ne ñoom ñooy jàll loolu moo taxoon bu njëkk mbir mi xawoon a jafe ak ak yu ni mel euh, mais actuellement nii nii nii sax am na si koo xam ne mu ngi ci daara ji fii nii am na fa document boo xam ne yaakaar naa ne mi ngi ci ijra ijraat yàlla mën naa def incha allah mu mu jàll beneen bi ci des mooy comme ni ma leen ko waxee foofu am na ay opportunité bu baax si ñaari façon njàng yi nga xam ne yëpp moom la ñuy jàng fii nii lu jëm ci wàllu dirasat islamiya luxal arabiya yooyu noonu am na fa am na kuliyu adab kuliyu sharia noonu yëpp tarbiya wa ma ila zalik am na si tamit yi nga xam ne moom mooy filière scientifique yi filière scientifique yi tamit euh, alhamdulilah yàlla def na ne bu njëkk ubbiwuñ ko woon dañ ko ubbi woon am ay euh, africains yoo xam ne ñu fa daan dem di ci jàng mais ñi su bëri dañoo seetlu woon ne bu ñu fa daan dem dañ daan taxawil demaat ci kulliyaat euh, adabiyaat yeeg yooyu noonu parce que niveau bi daawuñ ko mën a am ak yu demee noonu suñu ambassadeur bi nga xam ne moom moo nekkoon Koweït Euh, moom moo jékki-jékki woon def initiative dem waxtaan ak jaamia bi ne ko ñun kat Sénégal seen ay partenaires lañ da ngeen dañu fi envoyé seen suñuy doom ñu fiy jàng si mais gis nañ ne presque affaire euh, kii rek adabiyaat yeeg yooyu rek la ñuy jàng dañoo bëggoon ngeen ubbil ñu filière scientifique yi biñ ko bi ñu waxee loolu université bi université bi ne leen euh, dëgg la ubbi wuñ ko parce que ubbi woon nañ ko bu njëkk mais problème bi mooy ñi nga xam ne dañu fa daan dugg d'habitude ñoom ñëpp dañu daan mujjee transféré dem ci adabiyaat yi léegi ñu ne ko léegi nag dañu leen ko ubbil mais dañ leen jox benn benn bourse donc boo xam ne euh, essayé lay doon bu réussir ñu continuer di leen ko jox bu réussirul ñu tëjaat ko yàlla def essayé boobu nga xam ne moom lañu ubbi woon bourse boobu noonu mm, gars jotoon nañ ko te deux ans du wut du wut kuñ ko jox jox amuñ ko far yàlla def mu jaar ci euh, mudir ba ak ñeneen ñi si jaar ñëpp ba yàlla def mu yegsi ci man ci laa fi jugee dem ci noonu man ba ma fay dem sax yàlla xam ne rek moo woon ne mbir mi noonu la demee mais avant loolu alhamdulilah yàlla def na ak ci ndimbalu ba ñu jot ñoo kattanal ñu xam nañ ne ñun ñëpp man jàngee moo feneen fudul fii ci daaray Koki donc laa mas a jàngee mosuma dem feneen après bac benn formation bu ndaw lañ fi def man ak Mohamed mais te Baye Modou mii moo ñu jël yóbbu ñu Louga ñu dem les CRAC jàng foofu noonu def euh, formation accélérée ci maths physique euh, non maths chimie ak euh, SVT ginnaaw loolu lañ fi jógee dem foofu bañ demee jafe-jafe yi ñu fa xawoon am leen donc la mooy ne boo feesoo ko a dem foofu jàng mi c'est en anglais amul daray daray daray arab euh, foofu noonu fi ñu jàng si en anglais alhamdulilah tamit yàlla def na euh, xam naa temps bi du ko du ko du ko du ko du ko matale ñu mën a jàll si lépp mais liñ ci mën a wax daal mooy ne fi mu toll nii gannaaw man ba ma fa demee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñëwaat nañ sama ginnaaw ndax yàlla def na réussite loolu ñoon ñu defoon euh, tajriba boobu nga xam ne moom lañ defoon pour que kenn bu jàllee ñeneen ñëw alhamdulilah jàll nañ ko ba tax na man ba ma fa jógee instant bi am na keneen ku jógewaat ci daara ji ko xam ne mi ngi fi mi ngi si jotaay bi sax mi ngi foofu noonu di def euh, physique euh, ak laser ak télécommunication man alhamdulilah taxaruj naa moo tax ñu leen di wax rek yéen yéen ñi nga xam ne yéen a ci daara ji di di di di jàng am ngeen foofu noonu possibilité yu bëree bëree bëri bëri lépp lu xetoog science science bépp nag yëpp yëpp yëpp yëpp muy science appliquée yi ak science yi nga xam ne théorique lépp rek incha allah bu ngeen jaaree fi ngeen war a jaar rek incha allah da ngeen mën a yegsi wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéen a ngi seetaan daara Koki kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Daarakoki TV la chaîne au service di Saint Coran